الغالي bu yalla na ci yow waye seigne Mamor moy sama baay ma samba bokk ak seigne matou Lo sa benn ndey lo na loolu na seuk neena na lol lepp bi mu amé da nga jaay lepp jëndee ko talibé tak sa ndig tak sa laxasaay li nga xam moy bëgg-bëggam ak fa bëtam jëm neena fofu rek nga ne neena mi ngi lay sant di la gërëm teranga yi nga xamni indi ko ko sëriñ bi neena na nangu nangul na la njëbbal gi nangul na la lepp neena nak na sa xel dal te nga gën a góorgóorlu te nga yokk sa pastéef fa te nga xam ni moom fi mu fii mu teg bëtam moom xam na ko te insha allahu boo daggul da nga àgg nee na daal mi ngi toog yaa ngi toog loo meetare mu dagg jërëjëf nee na mi ngi sant mbooleem ñi ànd ak soxna si yëpp nee na ñooy waa Gaydel yoon